njiitu réew bu Sénégal di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ñu ngi koy ni nag ca dëkk bu sell boobu di Touba mu nekk nag visite bu am solo boo xamante ne fas nañ ko fa amal loole nag jamono jile tax na ba xalif général kullu murid di Serigne Mountakha Mbacké jox ndigal ñi nga xamante ne dañuy taalibe yi ak Baye Fall yi ngir nag ñu waajal ñu Bassirou Diomaye Faye boobu fa nga xamante ne moom mooy ca diwaanu Touba bëgg na nag ñu teeru ko ca na mu waree président Diomaye fay Faye fas yéene nag présider li nga xamante ne moom mooy cérémonie officielle journée mondiale de l'art ba mu nekk nag loo xamante ne jàpp nañ ko ba suba dimanche ñeenti fan ci weeru août atum 2024 fa nga xamante ne moom mooy ca diwaanu Touba mu fas yéene fa demee mu nekk nag ndaje bu am solo boo xamante ne askan bu Touba jamono jile nag ñëpp dañu koy xaar loolee tax sax ba ki nga xamante ne moom mooy Abdoulahat Ka nekk maire bu Touba daal di nag lëkkaloo ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy Baye Fall ambulant ya fare ci diwaanu Touba ak bépp chef de service bu nekkee ci diwaanu Touba googee ngir nag ñu waajal ñu Bassirou Diomaye fay foofee ci diwaanu Touba jamono jile nag bëgg na lépp daal di yemb maire ba nee na nag ndigal la ki nga xamante ne moom mooy xalif ba joxe te nag bëgg na ñu mobiliser képp koo xamante ne da ngay doomu Touba rawatina Baye Fall teeru ki nga xamante ne moom mooy njiitu bu Sénégal di président Bassirou Diomaye Faye ñëw boobe nag nekk lu am solo ndaxte nag jàpp nañ ne. dafay teewee bët bi nga xamante ne dañuy màggal njëmbatub garab ci diwaanu Sénégal rawatina nag ca dëkk boobee nga xamante moom mooy Touba nga xamante ne nag président Diomaye na ko ngir nag defee fa li nga xamante ne moom mooy bés boobee nekk nag ay xibaar yoo xamante ne Seneweb biral na ko Aminata Touré taxaw na ngi président Macky Sall dem janoog ñi nga xamante ne ñoom ñooy justice bu Sénégal loolee mu ngi ko xamle ci compte Xam gannaaw rek ba mu ne dafa daloon ab délégation bu xamante dafa ëmb collectif des victimes de violence politique yi nga xamante ni ñoo fi loru woon ci nguur président Macky Sall mu ne gannaaw ay jafe-jafe yu metti yoo xamante ne dundoon nañ ko ci événement politique yi fa amoon ci ñetti at yu mujj ci rañu ki nga xamante ne moom mooy président Macky Sall ñooñee nag Aminata Touré dalaloon leen ki nga xamante ne moom mooy Boubacar Sèye bu Horizon sans frontières itam te woon bi les délégations ñu dem seeti ki nga xamante ne moom mooy Aminata Touré Aminata Touré moomee sax nekkoon na fi ministre bi yoroon wàllum yoon nguurug président Macky Sall Boubacar Sèye gannaaw rek ba mu lancé ab pétition ngir nag ñu am ay signature yu mat ngir fexe ba président de la république bi fi nekkoon di Macky Sall dellu ci si réew mi ngir nag ñu daal di koy jugé ci li nga xamante ne jàpp na ni crime politique la loole nag mu def ci ay demanche waaye yemu ca moom Boubacar Sèye mu nga ànd ak nag collectif nga xamante ne loru woon nañ ci événement politique yi jiite xeex ba ngir nag def seen kéem ca mbir ya bëgg na ñu yóbbu ko nag fa mbaxane doonee benn loole nag Aminata Touré nee na dina leen ci jàppale ba mu mat sëg ndaxte nag dafa jàppale ñetti at yu mujj seeni doom nañu ci seen ab bakken waaye itam jële nañu ci ay gaañu gaañ yu bëri nag jële ci ay laago nekk nag loo xamante ne jàpp nañ ne Aminata Touré soutien am boobee nga xamante ne def na ko dafay défier di dalaat ci kaw ki nga xamante ne moom mooy président Macky Sall gannaaw différent bi nga xamante ne jotoon na am ci seen digg ñoom ñaar mu nekk loo xamante ne jamono ci la Aminata Touré daw ci lenn pare na naka taxaw dem ngir jàppale collectif boobee ba ki nga xamante mooy président Macky Sall ñu teg ko ci yoon loolee nag nekk kàddu yoo xamante ne daan na koy xamle ci compte Xam ñu wax ci li nga xamante ne moom mooy mbirum a népotisme gannaaw rek ba koy tuddee ci ministère yu bëri nee nañu nag phénomène boobee bëri na ñu ko doon xeex ci nguurug président Macky Sall waaye tamit ci nguurug président Diomaye googee gis nañ nag phénomène boobee dafay wëy kenn ci ministre yi gannaaw ba ñu ko ciy tudd ki nga xamante ne moom mooy Serigne Gueye Diop daan nag génn leeral ci mbir yi gannaaw ba mu fësalee liste juróom benni doomi aadama yi nga xamante ne ñooy liggéey ca cabinet boobee bi la yoon nag dafa dellusiwaat gën a xóot ca mbir ya nee na nag ñu ngi koy tuumaal mbirum népotisme te benn yoon gisul li ni mel ca cabinet boobee nga xamante ne nag jamono jilee soxla nañ sax ay doomi aadama waaye nag ba léegi liggéey dafa des nee na nag ñu bëri dañu ne jël doomam bu jigéen daal di koy dugal ca ministère am boobee doomam boobee sax nee na ñu mu ngay wuyu turu Daba Diop ñaari collègue yoo xamante ne ñoo doon liggéeyandoo ca kër googee di ne testale di ki nga xamante ne moom mooy Seynabou Kébé Ndiaye ak kii di ne moom mooy ab gorom loole nag weddi na ko ba mu set moom jorin ji nga xamante ne moom la ñu dénk lépp lu jëm ci mbirum industrie ak commerce fii ci diwaanu Sénégal daal ne nag dàq yile accusation nee na nag ñu bëri ñu way ñaawlu li ni mel di ko tudd ci ay ministère ministère am tam bokk na ci waaye nag loole daf ko weddi ba mu set nee na nag ay doomam nekkuñu ñoo xamante ne xamuñu ñu ci ëpp nekkuñu fii ci diwaanu Sénégal ñi jot a ñëw nag yàgguñu ci réew mi am na ñoo xamante ne ay ingénieur agroalimentaire lañu am na ci ñoo xamante ne ay journaliste lañ ay cadre yoo xamante ne dañoo qualifié ñu ci bëri sax miinuñu lool réew mi nga xamante ne moom mooy Sénégal ndax ca biti réew la ñu nekk ak njabootam ba ci sax mairie ba mu yoroon ca diwaanu sànjara nangul woon nag jël benn mbokkam ñu fay liggéey ndaxte nag li ni mel la doon bañ jamono jile jàpp ne na nag loole ñu koy tuumaal ca cabinet boobee dara du ci dëgg ne na nag li nga xamante ne moom mooy cabinet boobee juróom benn doomi aadama kott ñoo ca nekk ñett ña recruté wu leen sax fi nga xamante ni moom mooy ci diwaanu Sénégal kenn ka ca Australie la ko jëlee keneen ka États-Unis ka ca des réewum Angleterre mu nekk nag loo xamante ne la mu cay daw bëri na lool waaye nag du mbokkam boo xamante ne mu nga ca cabinet boobee di fa liggéey di daan dooleem loole nag nekk ay yoo xamante ne Serigne Gueye moo ko daal di xam ne nee na nag ba fii muy waxe ak yéen amagul sax benn directeur de cabinet boo xamante ne nekk na fa tuddal nañu ko nag kenn gannaaw am nomination ci poste boobee waaye nag ba léegi dafa toog di xaar xaar gannaaw rek ñaari semaine ba li nga xamante ne moom mooy nomination bébé daal di effective loolee naka nekk ab défense boo xamante ne Serigne Gueye Diop daan na koy xamle ca émission boobee nga xamante ne moom mooy grand jury daam ci i rajo ñu wax ci leneen di mbirum introspection bi nga xamante ne jàpp nañu ne jamono jiile moom la Thierno Bocoum di njiit bu agir nekk di def li nga xamante ne moo jëm ci mbirum a jaxase maanaam nag a wax lu dul dëgg ak li nga xamante ne moom mooy diffamation nee na nag day metti lool bu fekkente ne dañ ko jël di ko teg communiqué la fësal ci bésu tey bi mel ni nag kuy dénkaane ay kàddu yoo xamante ne dañu si jàngatee du lenn lu dul ki nga xamante ne moom mooy njiit bu agir di Thierno Bocoum dafa nekk nag jamono jilee di def li nga xamante ne moom la ñu duppee mbirum introspection maanaam nag jàngat ci sa bopp mu nekk nag koo xamante ne nee du supporter benn yoon li nga xamante ne moom mooy mbirum calomnie mensonge ak li nga xamante ne moom mooy wàllum diffamation ndaxte nag jàpp na ne dafay néewal doole nit te nag moom moomee kenn du ko gis te yooyee la mu def nag ak mooy teg ci li nga xamante ne moom mooy ay saar mel ni nag kuy dellu soir boppam ci yàlla ab communiqué la fësal ci bésu tey bii di xam ne li ni mel la wàllum lamb la ñu koy ndar keppe gannaaw kaddu yi nga xamante ne Modou Lo daal dina koy yëkkati jagleel ko Balla Gaye 2 gannaaw rek ba ñu koy déglu ci émission penco lamb ba nga xamante ne mooy am ca Bantamba TV Modou Lo la mu xam ne mooy nag jamono jile làmb ji benn couronne dong moo fi am moom moomee moo ko yor di nag njiit bu Rock Énergie ba nga xamante nag moo nekk ci diwaan Parcelles Assainies nee na nag couronne empereur boobee reconnaître ko benn yoon te du ko mës a reconnaître adversaire am lay focus muy ki nga xamante ne moom mooy Siteu gannaaw combat bi nga xamante ne jamono jiile moo leen nag jotale ñoom ñaar nee na nag seetaan na bu baax a baax combat ki nga xamante ne moom mooy Balla Gaye 2 ak ki nga xamante ne moom mooy Tapha Tine félicité na Balla Gaye 2 ki nga xamante ne moom mooy Tapha Tine nee na ñu bëri ñu ngi sàkku combat am ak ki nga xamante ne moom mooy Balla Gaye waaye nag nekkul loo daf koy dàq ndaxte jàpp na ne la gay 2 rival la ci moom jamono jile la mu focus mooy combat ak ki nga xamante ne moom mooy Siteu couronne empereur boobee reconnaître ko benn yoon te du ko nag mës reconnaître mu nekk nag ay kàddu yu xamante ne Modou Lo daal dina koy xamle jërë ngeen jëf mbokk yi ñu doon teewlu ci chaîne bi nga xamante ne moom mooy réew Rewmi TV loolee moo fi yesandi woon ci xibaa yu leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di leen jox dig daje ba beneen jaa ngeen jëf